Abidjan maa ngi leen di nuyu waa Côte tey boo yeboo ne yëf danoo bett waaye kon jigéen ñëpp a ñëw parce que fii Côte d'Ivoire gépp ànd ak Sonko waa Abidjan gépp ànd ak Sonko ndax xale bi dafa baax dafa yaru yal na ko yàlla la fa waaye nag li ko mati bëgg a def duñu ko nangu li ko Macky bëgg a def duñu ko nangu jël sunu doom ji sànq ko jël sunu doom ji sosal ko ji na ko jant bi ah, ah. duñu ko nangu ah, Macky Sall sa xel ci yàlla nguurug yàlla du jeex nguurug yàlla du jeex dama ne bàyyi nu sunu Sonko mi bàyyi nu sunu Sonko man Sonko laay Sonko laa bëgg maa ngi ci Sonko tey ak bàyyil ma Sonko barki sëñ ba jox ma sees man lu may wax dama koy wax en tant jigéen puisque jigéen la Macky jël pour luubal Ousmane Sonko ñun jigéen ñi ñun ñooy jóg luubal ko moom te suñ ko waxee rek war na ko gëm.